waa kër Serigne Modou Rokhaya Mbacké ca Darou Salaam doon nañu amal ab daje dem ngir fësal seen ànd ak maître Madické Niang laataa loolu Serigne Modou Mamoun mu yoroon seen kàddu daal dinay rafetlu ñëwub Abdoulaye Wade ci fan yu génn teg si fësal ne ñoom bokkoon nañu si ñi ko doon teeru ci dëkk bi. di ko xamal ne ko bi mu fi ñëwee barki dem bu bokkoon nañ ci ñi nga xam ne mobilisé woon nañ topp ci ginnaawam di ko teeru di ko wan suñu cofeel ci moom ànd ko mbooleem mbokki waa Touba gépp di ko xamal ne tey lañ ko gën a bëgg tey lañ ko gën a sopp mbooleem ku dëkk Touba ak ñëpp rek ak fu waaye mën a far rek taalibe bi ñu ngi fàttali ak cofeel ci moom goo xam ne duñ ko fàtte mukk Serigne Modou Mamoun Mbacké di sàkku ci Abdoulaye Wade mu ñëw jàppale kii di Madické Niang ndax jàpp nañ ne moom moo gën ci candidat yi ñu gis di ko di ko ñaan nag liggéey boobu nga xam ne commencé woon na ko ànd ko président Madické Niang depuis ba mu faloo 2000 ba 2012 bi mu fi jógee bàyyi ko fi mu muy dugg fépp ci kër ci kër yi diine yi rawatina fii ñu gën ko ràññee ñun fii ñu dëkk ci Touba bi mu fi nekkee tamit moo doon dem moo moo doon rattaxal digganteem ak kër diine yoon wi ñu koy ñaan nag président lay Wade ci sëñ Touba mi ñu bokk ak taalibe yëpp ñu koy ñaan mu ñëw jàppale président Madické Niang bu ko defee liggéey boobu mu commencé woon mu mën ko wéel loolu mooy li nga xam ne moom la ko taalibe yëpp di ñaan yoon yëpp di ko ñaan ci gëm nañ tamit mooy li nga xam ne bu ko defee dana ci dajee ngërëmul sëñ Touba ca dana na doon lu yomb lool ndax da ciy day day tombeek mu nekk bëgg-bëgg taalibe yi ca mooy li nga xam ne tamit mooy tax taalibe seen xol sedd ndax moom par exemple lay wax liggéey bi mu commencé woon di ko liggéey sëñ Tuubaa ba mu fiy jógee xam nañ fa mu ci yemoon waaye xam nañ li mu yéene woon ko ca mel na moo dikka lañ gis ne nam ko tàmbalee woon yéene woon ko ko mel moom lañ gis ne mën na ko eggalee noonu moom mi lay yëkkati ne ay di dànkaafu Macky Sall ci ni mu doxalee ginnaaw ñëwee ci dëkk bu sell bi ci Touba. président Macky Sall bi mu faloog léegi Daaru Salaam xam ne mooy capital yoonu murit moom la sëñ Touba njëkk sañci sëñ faloog sëñ Moussa fa lañ gënee àdduna maam Cheikh Anta tëdd fa mosu faa teg tànk mosu faa def dara jël programme programme cité yeesal cité religieuses yi boole wuñu ci mosu faa ñëw ba weye suur dese ko ci élection yi ma yàgg naqar loolu waaye ba mu ñëwee kay kilifa gi sëñ jili la ma doon wax mu répété ko jaaraat ci loolu ba loolu amee nag am na ci ñenn ñoo xam ne ba mu delloo wut na leen nag ci ñenn ci ñu dëkk Daaru Salaam ay benn benn benn wala ñaar ñoom ñu ñàkk fu la ñàkk gëm seen bopp ba ne dañuy jàppale euh, Macky Sall Daaru Salaam mu li nga xam ne nañ bàyyi intérêt personnel ji maa ngi wax euh, président Macky Sall ne ko nii mu jàppee yenn ci kilifa yi Touba kidnappé leen ba bi Ablaye Wade di ñëwee ñëwuñu faa teew loolu metti nañu loolu ñoo ñooñee nag yëdduñu leen dañu ay sëriñ taragal tam nappu leen ay sëriñu neen lañ ba ñëwuñu faa teew ba am na ci ñu ñoom ci ñoo xam ne rol bañ war a ci yoon wi dayoo ba mu am xaalisu Macky sàll wala ay ay menaces am waruñu ko waruñoo jëndee liggéey Sëriñ Tuubaa dara ci ndax jaar nañu Ablaye Wade fu ne dañoo xam nañ ko bu ñu amee tuuti Ablaye Wade la ñenn ñi dayoo bi ñu am ci liggéeyal màggal ak yeneen yeneen loolu day na sëkk ab sag ñooñu nañ leen wax nañ dalal seen xel weer ay fan yu néew dinañ leen libéré waat ñu nekkaat seen jàmm ndax dinañ fi jëlee Macky Sall léegi ñu nekkaat seen jàmm. waa Daaru Salaam tànn nañu coalition Madické 2019 ngir ànd ak ñoom ci jongante njiitum réew yi ñu jëm yokk si ne ñoom dinañ tekki buum yi nga xamante ni Macky Sall takk na ko yenn ci kilifa yi nekk ci biir Touba.